bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokki taalibe yi mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen te di leen masaw yi di leen jot lii itam nuyu Serigne Touba seen Cheikh Sidi Mokhtar ak ak ñaanam xelam ak xolam waxtu bu nekk nekk ci yéen ñu di desiwaat fii di ñaan yàlla yàgg ko fekk bokk ko ni yéen sunu boroom bi mu bindee dafa noo bàyyeek suñu bopp ci ay anam ak la nga xam ne moom mënuñu ko bàyyee ndax mënuñu ko yor lan mu bàyyeek suñu bopp may naa leen loo xam ne ku ca duggoon sa bopp muy sa xol wala sa bëgg ca dugg mën na la caa dimbale waaye kenn mënu caa dimbale kenn te bëgg caa dugg waaye soo ca duggee rek mu defal la ca loo xam ne da xam ne lii du sa yëf ka ca bëgg dugg nag ba dugg ca ba am ca loola kooke moo mat a naw te kooku mooy yéen seen jëmm yi euh, ànd nag lislaam dafa am ñu jàpp ne diine ak àdduna ànduñu am na ci ñu ko wax ñoo xam ne ñenn ñi lañ ci jublu mooy bëgg nit ki nga xam ne mooy ab jullit mu fàtte valeuram wala mu bañ a dugg ci biir mbiram ba xam te loo xam ne dana tax kooku àdduna kookee mu xëy ko ko ka des bëgg yor yi fi boppam yoo xam ne bu ko ca bu ca bu ca bu amul bu ko tegul ci yoon da ca defar boppam ak dindil boppam tege ca kaw ñooña bu boobaa loolu yëpp dana ko yàq dana ko gàllankoor kon kenn ku ci nekk da ngay si bopp wante diine ak boole la xam bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee alxuraan dafa wax ne atiiwu llaaha wa atiiwu rasuul wa ulil amri minkum loolu ñett lu bokk la yàlla moo ñu bind ne topp leen ma muy fa leen fa lépp di delloo la ca mooy bu ngeen xamul ngeen may toppee danaa yebal ay yonent yonent yooyu ay nit lañu ñëw na yéen lañ leen wax maa ko wax ngeen xoolee ma ci seen jëmm bu demee ba génn ci amatul mu teg ca la mujj na nga xam ne loolu moo dul jeex ba ulil amri minkum mooy ay kilifa kilifa yooyu bu jeex mukk kilifa nag du koo xam ne dañu koy nàmp wala day doon deret wala muy loo xam ne koy judduwaale kilifa ay critère la ay mbir la ñuy daje ñem ko seqal di seen ñu muy ci seen kilifa tamit ay mbir lay doon ñu daje ci ñooña mu mel ne kon nos boobu fii mi am ci àdduna te war a ci diine ndax diine lépp bu boobaa rek mooy am waaye ña koy koy doon na am ña mu koy ña ko koy def ak koy jiital li tax mbirum yàlla wute ak mbirum àdduna moom mbirum diine kan ca jiital moom da nga koy xool dëkk da xool te yàlla ca moom mooy lépp loo gis mu def ko ca lu dul noona da xam ne jàpp na yoon wax kon ki lay jiital ak ki ki jiitu ak ki la ki la jiital dafa mel ne yéen ñaar yéen a boo ko seetee ba ca biir sax kenn jiital mooy gën a sonn ndax ki lay jiital nga war a jaar kooku war nga ko war ngaa xam ne kooku yomb ki jiital ko xam fi nga war a jaar mooy ki xam ne yàlla rek moo leen boole saa boo doxee lu dul loola bu boobaa moom ci boppam moo leen njëkk wax loola moo koy njëkk feeñal kon day daal di nekk toon day daal di nekk aw sas ci ki jiitu waaye nag ki jiital itam bu fekkee la muy xool rek mooy lu baax su ko gisee ci fa nga ko jiite bu boobaa soxlaatul leneen kon ñoom ñaar seen mbir lu waaye lu jafe la lu yomb la mooy pas-pas moo koy lal yàlla rek moo leen boole lu jafe la mooy leneen lu ca dugg lu loola kenn ku ci nag këla jiite moom ngay daal dellu ginnaaw ndax loolaa ko tax a jóg te koy jiitu nag mooy foofu la loolu di jóge ndax ki la jiital te yàlla rek tax fekk yàlla rek loolu amul soxla ci leneen saa boo jàddee mu dellu ginnaaw nag bu boobaa saa bu delloo ginnaaw nag ci xoolal sa bopp ba xam yaa dellu ginnaaw wala yaa gàtt kon seenu ànd du bett kenn seen nekk benn bett kenn xanaa la ca am solo mooy wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba riihukum ànd bi seen njariñ ñëpp la diine leen ko digal waaye njariñ la seytaane nag ñàkk noo sonal ndax loolooy liggéeyam daa yoon mi bañ ay di wa min xalfihim wa an aymaanihim wa an samaa'ilihim wa laa tajidu aktharahum shaakiriin moo dàggasanteeg noonu boromam danaa toog danaa leen fu jaar te sax duñ la faat duñ la sax sant loolu mu di ko wax koo xam ne mooy lépp kooka nangu koo dégg ca moom bàyyee ko mun ne ca loola te doomu aadama la ko bàyyee ko ku ne xam ne doomu aadama moom mënta noppalu fu mu toll it seytaane liggéeyam boobu ma wante nag liggéey boobu la ko yombal lépp mooy bu fekkente ne pas-pas boobee am na lu ci rax mu mel ne su yàlla defee ngeen ñëw fii te li ñu fi wax léegi maa ngi leen ndokkee ñi fi jàngal nga ñaar ci loolu rek firndaal na ne yéen waxoon naa ko fi daaw wala am na ma ko waxe woon ne loolu kese te ma bari woon na fi loolu bari ñu ko doon jàng loolu ndax mën naa yor sax adduna waxuma laa kii te fii nekk ngeen fi nekk nekkul nekk bu bu bu wooyof loolu ku ko nekk cim réew di ko def cim réew adduna dëkk loolu mën na ko yem ndax suñu borom nag lu lépp moom la nga boole ci nag jaare ci koo xam ne léppam da ko joxoon borom mooy sëñ Tuubaa kon li ñuy wax rek mooy yéen kuy xool te seet gëstu dafa war a bàyyi xel ci yéen di def ab royukaay ci yéen te xam ne moomu leen seen bopp lislaam waxtu yu nekk mës ta ñàkk bañ am ay ay jafe-jafe ay ay ay jàdd jàdd ci ay kenn xamul yoo xam ni nit ko ci def suñ demee ba tollu jamono boo xam ne nun li ñu ñëw néew néew doole ci néew doole li ñuy wax néew doole ñi ko jàppale ak ñu daan néew doole mooy bañ a bari la alal te kooku du ñëw doole mën ngaa am lu jeex te amoo dara mën ngaa am tuuti te am lu bari am lu bari nag mooy fexe ba fa nga nekk nga nekk fa te dëgër te bu dëgërlu ci sa borom te kenn mënu laa tax a wëlbatiku jàdd ci leneen lu loola ndax loola kon da xam ne yow mënatoo am jafe-jafe ndax jafe-jafe boo ko dee am da koy amee yaa ngi ko am ëllëg bu fekkee te nag tàmbalee nga yombaloo sa bopp tey fii am ko am fi yomb am fi tàmbalee dem jëm ëllëg ku mel noonu amatul ak jafe kon yàlla nañ li am solo mooy nañu gën a nekk benn ndax fii ngeen nekk. lu bare nit ñi di leen xool bu dee nit yi àdduna yi dara ump leen ci yéen ndax lu dul li nit fu nit lu nit mën a xam ci nit rek ñu ngi koy xam ci yéen am na nag loo xam ne yàlla rek ko mën a xam kooku nag bu ko xamee te àdduna rek la xam xëy na am fu mu la teg foo xam ne xëy na am na ci loo xam ne sax yéen déggu leen ko kooku war ngeen xam ne sëñ Tuubaa moom mais la mu doon liggéeyal boromam yéen ñii yéen ko ko rafetal nag bopp di di di di yéegul wala di sant yàlla bu baax ndax dañoo gis ne l'islam fii mu toll ak fi nga xam ne fi la ko àdduna tollool nga xam ne ñun jàppoon ne sax dañ ca daan def dara wala dem nañ ba jàpp ne ñoom doon nañ ci dara wala sax ñoom la buñ demee ba kenn nawatu leen ci mun ñi nga xam ne dañoo jàppoon ne duñ ci dara wala mënuñu ci dara dem ba ci ñëpp xam ne lañ ci man ak lañ ci doon yombul loola ndam la loo xam ne ki ko liggéey mooy sëñ Touba te buñ ne sëñ Touba rek waxale nañ ñëpp ndax sëñ Touba kat njiwu fi woon wax naa ko ne leen ne leen sëñ Touba njiwu fi woon pour xeerante wala muy dànn dagalante dafa ñu woon biñ ñëwee fekk na fi nit ñu baax ñëpp. moo tax seen su ngeen waxee ni kër gi kërum lislaam yi ñëpp fi nekk loolu mbégte la loolu. dafa nekk ndamul lislaam loolu nag ànd ak gëm googu ngeen ko wax inamal moo xam ne lu école ñoo nga wax yàlla moo ko wax yàlla moo ne waaye nag baat bu xóot la ndax iman dafa bokk ak islam inamal moo am ne noonu la wax dafa inamal muslimoon muslimoona bi nga xamee ne sunu borom tabaraka wa taala yónni na jibril alayhi salaam ci yonent bi salaam bi mu ñëwee daf ko laaj soppiku nit jëm moo tax léeg-léeg ñi nga xam ne xamuñu diine wala am na nañ lu réer wala wax lu war a loo xam ne jarul ta soom na jarul ta waxee dañuy wax ne nit mënta gis jibril jibril ak gisam ko ñàkk gisam ko amul solo ndax jibril ndaw la woon kon daal di naa ne amul solo yooyu beneen mbir la waaye liñ bëgg wax mooy jëmm soppeeku ñun ñun sallallahu alayhi wasallam de ko laaj nekkul ran mooy gëm mu ne ko mooy nga gëm yàlla gëm àllaaxira gëm yonent bi gëm nang gëm dogal gëm loolu mu ne ko lislaam nag mu ne ko mooy ngay jóg di julli maanaam ñaar yi ñu ko déggee mooy lislaam mooy li nit ki di def ci kaw di julli di woor di natt asaka ñu ko gis kooku nit mën na ko def ba noppi du am ngëm nit mën na ko def di ko defandoo wala mu def ko ngir bëgg a feeñal lu bokkut leneen wala mu di ko def ngir def ko wala bu ko defee ba noppi jéem a def leneen lu safaanagula la waaye iman ci boppam nag mooy garanti nit ki mooy nit ki li nga xam ne boo ko xasee def fu mu nekk jàpp na ne am na lu dend ak moom loo xam ne moo koy tere mu war a def lu dul noonu loola nag moo leen di boole yéen moo tax ku fi nekk ci beneen tareex ngeen mën a nekk benn gëm boobu moo leen di boole ndax bu boobaa lu baax rek ngeen di bëgg nit ki bu fekkee la muy bëgg lu baax rek la te lu baax xam ne ne fu ne la am ndax Sëñ Tuubaa wane na ko masaayixi Seydina Jilaani wa Saadani wa ci Tijaani loolu bi mu koy wax jamono ji bokk na ci lu ko moo xam ndax day sultaan yi leen noonu waaye ku ne xam na ne jamono ji loolu bàyyi woon na ko xel ñoom ñiiroon te wuñ woon li mu fum fund foofu mooy fépp fa lu baax nekkoon demoon na fa tànk ba ndax bu doy bam di mel tànk nag doyul moroomam mi dul mi nga xam ne am na lu bari te doyewu ko dara mu yokk moom may ko ñun ku seqaloon nit ñooñu ñëpp euh, ànd ak moom ca loolu kon nun ñi nga xam ne noo wéeru ci ñoom nañu bàyyi xel loolu yéen nga xam ne yéenay waa Kër Sëñ Tuubaa nii ngeen di xam leen ne mënatu leen seen bopp nun ñii fii mu toll Sëñ Tuubaa mbiram damay wax ne bu doon lu ñu rek bés bu set da nga gis ab sëñ Moussa bi bu lu jëm ci fukki sëñ Touba wala junni sëñ Touba waaye du lu ñu li jëm da ngay liggéey liggéey mooy maye kenn mënta wax sëñ Touba nag yàlla may na ko loo xam ne képpam boo juróon wane photo rek sax taxaw ca ne photo bi mu ngi nii nit ñi fekk la fa teral loola bu fekkee loolu rek la ca ñoroon dana ca am la nga bëgg waaye sa yëfi bopp nag yoo xam ne yaa koy am lu mbirum biir nga xam ne cee am ko tuddoo liggéey ndax yàlla moo doxale noonu kon moom itam loolu la ca xamoon ba tax yéen ñii fii ngeen toll li ngeen di def jàpp leen ne moom ngeen nekkal nii ngeen nekk ak moom nii ngeen moom ngeen nekkal fii ngeen nekk ndax li ngeen fi am ci ay résultat moom kenn mënu ko lijjanti da ngay am foofu wéeru koo ko xam ne lii la bëgg nga ànd ak moom ci loolu mu jàpp ci ngeen doxal ko yàlla fa mu nekkoon rek ba léegi foofu la nekk dara mun koo sori moom ñu ci àndoon ak moom it Cheikh Amadou Bamba moomu nga xam ne tamit lim am lépp ci liggéey yàlla la ko am téyel ko boppam nag kenn du ko saax saaxee ku ci bëgg dugg it bëgg caa dugal sa yëf it da ngay sonn rek waaye moom du ko yàq ndax daf caa sonn te kenn jàppale wu ko ci woon kon yéen ñi koy jàppale bu leen tiit ci dara bu leen tiit fokk sunu borom wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin loolu moo ko wax fokk mu def ko te yéen foofu ngeen toll kon lu jamono jafe-jafe jafe nekk leen ci lii rek am milliard te doo nekk ci jàmm wala milliard boo xam ne boo ko amoon sax wala ay sa xel bu daal te boo ci génne dërëm sax sa àddina li bëgg tukki wala fokk nga jéem foo ko jaarale kon yéen ñi yàlla def xëy na eggu leen foofu amu leen lu amu leen lu leen lu leen doy sax seen kër te saa bu yàlla jógee wala lu jëm ci sëñ bi te mooy lu benn la ndax lu yëg ci sëñ bi yàlla yàlla rek la jógal ngir jël seen lépp seen waxtu ak seen jamono ak seen doole lépp di ko ànd di ko def loolu jàpp leen du du nit mënu koo lijjanti kon yàlla bi leen ko defal sant leen ko ci bu baax kon ñu ngi ñaanal yàlla lépp ngeen xam ne eh, ñun noo da ngeen noo fas nañu yéen ñu itam démb loolu boobu ngeen ñu def mu ñu itam danañ def lépp loo xam ne dana tax li ngeen mën a nekk fu ñu a nekk ak muy guddi muy bëccëg sunu ngor mayeetuñu sax mu nekk ci loo xam ne far na wuute ak loo xam ne yéen dana leen jariñ wala lu lu lu bokk nekk ci ak yéen moo tax nag kër yi di ngeen ko waxee di ngeen ci fexe ñu di ci xam ndax fii mu toll xam-xam xam-xam ak diine mos ko sax ñàkk am solo waaye fi mu ne dafa gën a dafa am solo ndax li ñu wëlbatee bari na lool ndaxte bari na ñoo xam ne lu ci bare dañ ko jàppe muy ay loo xam ne njariñul tey la wala yëf yoo xam ne njariñul kenn la ba tax na mbirum sëñ Tuubaa itam li tax mu mu doy waar mooy yàlla da ko may ba ko may may boo xam ne koo xam ne du nga tuddi sax loo bëgg mën nga ko caa jaare kooku mbiram dafa yaatu lool waaye lu mu yaatu yaatu ak lu ñu bëgg bëgg jaare mbiram te na ko kooka bëgg yi teewul mujj ga moom tegewul te fa mu war a teg yëpp day jël lam ca am te boobu daal rek la ko def dañu am sant rek yàlla ci yàlla musul comme nañu jéem fexe ba xale yi ñu di leen yar jàngal leen diine jàngit muy loo xam ne mooy moo ko muy dimbale mënuñ dimbale ci ndaw yi kon xale yi da ngeen gën góorgóorlu yi nga xam ne di ko ñu leen baamu di leen góorgóorlu nga xam ne yéen a jiite ngir liggéey bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu sàmm leen bu baax ndax xam naa ne dañuy wax ne ku leen xam rek ku leen gis xam ne am na loo xam ne koo ca fekk ku bàyyi léppam ñëw ba fii mooy liggéey liggéey boo xam ne ka nekk fa leen mënu ko kooku war naa xam ne la ko indi foofu du ay leneen la kon yàlla nañ yàlla saxal yéen itam yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak muy njiit ndax njiit du lu neex ku ko xam ndax koo xam ne yàlla mi ngi ko boole ati Allah wa ati am na xam ne ñett yooyu la foofu la classe am nekk kooku du lu du lu weef ku yàlla def rek sonal na la kon nag yéen ñi nga xam ne yéen ànd ñu ngi ñu di gërëm bu baax ngeen leen jàppale te xam ne du du ak pal li ñu waxoon rek bi ñu sëñ bi di wax ne da dem ci nit ñi ñu xàmmeewul loola ñu ne kon ñun du aw sas du ak du ak pal wante sas la sas nag feeg bayoo ko yaakaar naa ne waru koo xaar ab añ waaye tàmbul sas naa la rek nga ne kon jox ma sa añ kooku def naa ne nit waru koo xalaat kon yéen dafa mel na liggéey bi yéen a ko doon kon yéen ñi ñu ngi leen ñaanal bu baax di ñaanal ndaw ñi fi nekk it mu góorgóorlu bu baax ngeen gën a góorgóorlu topp ci mag ñi. daayira du ay dajale xaalis rek du ay dajale waaye la ca biir ak la mu ëmb mooy diine mooy antisab waaw parce que di leen maan loolu lu am la ba noppi. tàggalikoo ak yéen moo gën a jafe ak ànd moo gën a yomb moo gën a moo gën a yomb ci yéen moo gën a jafe moo gën a yomb ci yéen ak tàggalikoo kon nag ànd bi na ngeen dàq seytaane te fexe ba kenn ku nekk bi rafetal xolam ndax am na ci solo lool rafetal xolam kenn ku ci nekk bu tudd moroomam ginnaawam loolu it di ko bàyyi xel bu baax suñu borom. wax na ni jëw mi ngi mel ne kuy lekk mbeddu nit kon loolu nañ koy bàyyi xel bu baax kenn ku ci nekk itam rafetal xolam ba lëm yéene boppam mu yéene ko ak moroomam kenn ku nekk tamit lëm lu mu dégg ci nit bu mu ko bàyyi xel na jàpp ne loola du noonu bu ko defee ànd bi dana rafet su ngeen jaxasoo noonu bu kenn wax nit ki ci ginnaawam bu kenn jaxase kenn ak kenn ku ci am te na jàpp ne moom moo jum kenn ku ne xoolal sa bopp sa bopp waaye boo ko ne xoolee sa morom rek bañ a xool sa bopp rek loolu day indi ay jaxal jaxasoo yéen nag loolu bu ñu ko dee wax fàttali rek la waaye xam ne ne li ay ay jikko mooy mooy doomu aadama diine rek la bi alxuraan di wax ba innaka la ala xulqin azim kooku jikko la jikko mooy diine diine mooy fexe ba la ngay def lépp nga jël sa morom teg ko ci sa kanam kon nag xale yi ndaw yi na ngeen góorgóorlu bu ngeen fi nekkee ànd leen man ñi daayira yi gis nañ ngeen nekk du sonn yéenay taxaw ci mbedd yi loolu bu ak doye déedéet du ak ñàkk fayda nag da ngeen ci amee loo xam ne fii da ngeen ko fi am fii am ko ci ëllëg te seen xelit dana dal ndax xel mu dal kat ak de mu ëpp ak lu dul jeex ba nag te waxtu ni ngay sëf sëri te jéem la nekk ci lu baax ci sàkk lu baax lu ngeen am lu tuuti tuuti tuuti na sell bu ko defee da ngeen ko mën a jëriñoo te du yóbbu seen xel waaye lu bari bari bari bari bu seetlu ci soo ci du dal waxtu ne yaa ngay bëgg na ko yokk te mu boobaa bàtt yi da ca nekk kon loolu lépp na leen ci na leen na ci yàlla musal suñu mbokk ñi tamit ñu di fàttali rek mooy daayira yi fi nekk tamit ñu ngi leen di ñaanal bu baax ngeen góorgóorlu rek di gën a góorgóorlu te waxtu nañu di leen ko fàttali bu leen aada yi mukk aada yi réew yi mukk dugal ci ngeen bi bañ fonk seen i kilifa kenn ku ci nekk fu kilifaam nekk bu fi amee kilifa na ko fonk bu fi amul kilifa yi tamit na topp ci yi nga xam ne roy ci nit ñu baax ñi nga xam ne bu ko defee dana mën a am lu baax ndaw yi fi nekk di seen i ngeen sàmm leen bu fexee ñu di leen jàngal ci kër yi barab yi barab yi barab bu yarukaay la barab bu jàngukaay la ñun nag li ñuy def ci njàngit loolu la ñuy def ci réew mi ñëpp dañoo bëgg rek lañ daan def def naa gis naa fi professeur Cheikh Cheikh Balbo léegi li ñu bëgg lépp mooy lañ daan def di jël ay di leen génne ñuy dem ci biti léeg-léeg ñu am ci jafe defe lool léeg-léeg nga yóbbu nit bu dikkee di leen indil loo xam ne moom sax xamu ko loolu lépp te léegi ñu gis na kon xam xam ba noppi xam sa diine tey la am loo xam ne kenn amu ko woon ñu defaral la ko loolu dafa gën a am solo moo tax ñuy defar jàngukaay yi di ko def ay di ko soppi di defar liggéey yoo xam ne lépp dañoo bëgg rek ñu gën a am xam ne lim am ci diine lislaam mun nii jàpp nañ ne seen Touba ak mu ñi nga xam mooy ñoo ñoo ñoo yéen ñii mag yi nga xam ne ñoo fi nekk jàpp nañ ne lislaam ñoo ko mën a rafetal ñoo ko mën a defal kon nag yàlla na fi yàlla def jàmm lépp lu képp ku fi ñëw luy aajam yàlla ko ko yàlla fajal yéen ñiy jàng xasida yi tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen gën a fàttali xasida yi ñu ngi koy jàng waaye na ngeen koy seet bu baax ndax sëñ Touba léppam lijjanti woon am njàng sax bi fi nekkee ba daaj yi ñuy daaj sax daf ko wutuloon boppam waa kër sëñ Massa nga woon fële waa kër maam Thierno Biraye bi nga woon nga xam ne daf koy déglul boppam mu mel ne nag bàyyi xel dem ba dugal ci lu ci bokkul dugal ci lu bokkul mooy jàng ak musique bokkul ni ñuy waxee ci musique di ko daajee bokkul ak ci nañ ko war a ci ay jàng koy bàyyi bu baax bu ko def mukk phénomène ndax xasida yi sëñ Touba daf ko fonk message am yëpp ci la ko def li mu bëgg a wax ak li mu bëgg a def ak la mu def ak ak la ko yàlla lépp ci la biir ak la nga xam ne kenn mënu koo xam kooku nag ku sasoo ne ca nga ne war nga koo war nga caa def war nga koo xool bàyyi xel bu baax bala nga caa dugg na a seet sa bopp na nga seet sa bopp ci sellal na nga seet sa bopp ci bàyyi calcul na nga seet sa bopp ci lépp looy defee nga def ko def ci conviction mooy pas-pas te dañuy wax ne ñaar yooyu bokkul calcul ak pas-pas bokkul pas-pas da ngay fas dara rek lu la ci fekk baax la calcul nag mooy looy def lu ne nga jàpp ni feele la jëlee bu la ko àggalee dama ci mën am résultat kooku bu ko kenn def ci xasida yi seen tubaay na ngeen ànd nekk benn te di ko jàng njàng mu sell seet mag ñi seet daagi mag ñi ngeen di ko def ndax neen musique bokkul bokkul daañu musique xam ne ngeen musique ñi xam ne si xam nañu bari na ay ay ñu ngi koy waxee ak ñu koy daajee yooyu yëpp nag duñu bëgg lu bees wala bëgg lu neex ba ñuy jël rythme yooyu du ko def ci xasida yi loolu yëpp nañ koy bàyyi bàyyi xel kon ñu ngi leen di gërëm te ay ndaw yi xam ne ñoo fare woo loolu na ngeen góorgóorlu sell na ngeen góorgóorlu sell xasida yi kat ku nekkul ci loolu sax dangaa war a sell waaye xasida yi seen tubaab def na ci lu ne tubaab yi fi mu leen jaaxale fi nga xam ne fi la fi la mission mate ko téye ko sonal lépp bu fekkonte ne fexe nañ ba defal lu xasidam yooyu kon dana kon lépp ñu ngi ci biir kon nag yéen ñi koy defee méngoo tamit ñu leen ko góorgóorlu bu leen ko def xew bu leen ko def xew boo xam ne nii lañ koy doxale bu leen ko def ay groupe wala ay loo xam ne da ngeen ci ñu ñoom tey xalaat su ngeen ko defee tamit mujj ba borom dana ko liggéey ci si yàlla yàlla kon yàlla leen yàlla sàmm kon ñu ngi gërëm السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان مناسئا وأعصى